triste nouvelle bi ma leen di annoncé mooy il semble y avoir des il semble y avoir des c'est déplorable mais situation boobu moo fi am quoi vraiment lii kenn xamul lan la quoi kenn xamatul lii lan la kenn mënul laa wax lii lan la on sait plus lii lan la quoi miir bi dafa daanu ci ay ci ay nit miir bi dafa daanu ci ay nit gaañ nañ ci ñu bëri. vraiment man man lii man xamatuma kenn on sait plus quoi